tout droit nuyu nañ leen ziar nañ leen bu baax a baax tey nag dañoo def tout droit Koba Ngoye suñu dëkk seet si le grand mara ki nga xamante ne moom moo di la fay di yëngu ci affaire ñaan ci affaire ay sàngat ñu seet si ko tey fas yéene waxtaan ak moom ci liggéeyam nañ lay jàppale doomu aadama yi maanaam ci la nag lan lay yëngu ku am ay soxla la nag lan nga mën a ñëw fii bu mu fajal la ko ci bu soobee yàlla. waaye balaa ñoo xuus si loolu tamit dinañ ko laaj li mu nekk di liggéey nii moom de ko donn wala de koo jàng wala xam-xam bi nan la ko dikkee maanaam lan moo ko dugal ci li nga xamante ne moom moo di ay ñaan ba mu nekk si ba ñu ràññee si loolu ay nit jug di jóge fu ne ci Sénégal ak ñi nekk ci diaspora bi di ñaan lu si moom voilà pour ñi ko soxla numéro dinañ ko def ci suuf ku ko soxla rek nga woo ko si numéro boobu mais laataa ñoo xuus si waxtaan bi dañ koy nuyu nuyu waa Kobangoy yëpp waaye aussi bàyyi ko kaddu gi mu nuyoo ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy seetaan Ismaïla nuyu nañ la. Lamine fay nañ la. Mhm. Ah, maa ngi leen di jaajëfal. ci tànk bi ngeen dox si nii si seen dëkk fi ngeen dëkk Kobangoy. Mhm. maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax di nuyu waa mbooloom waa Kobangoy. Mhm. maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant mag ak ndaw góor ak jigéen. waaw balaa bu ma jógee Kobangoy nag damay dem lew parce que fa la mbir ma jógee boo nekk ba ngoy lew na rek lew na maa ngi newoon ci sama nijaay Seex Njaay lew na Seex ku fi nekk euh, boo ko xamul di dégg nga turam waaw fa laa newoon di dawal oto safoor la aussi te ma doon dawal maa ko doon dawalal mais yàlla def yàlla def lim def ba pare après ci laa ñibbisi fii ah, di ci yëngu it gis nga li yàlla def waaw yaa ngi ci léegi ñëpp ràññee lañ la ràññee nañ la ci lii émission bi sax yàgg nañ ko bëgg a def mais yow yaa doon daw mais lii dafa bokk si li nga xamante ne mënul ñàkk parce que boo nekkee si dara di ci yëngatu dafa baax nit ñi xam ko te li nga xamante ne moom mooy réseaux sociaux yi léegi ñu bëri ñu ngi koy bañ mais lu am njëriñ la parce que lépp lu waay di liggéey soxla nañ ñu fosal ko ba nit ñi xam ne kii mooy kan ak kii lan ak lan la mën nee nga yaa ngi nekkoon ci Cheikh Ndiaye nuyu nga waa ko ba ngay nuyu waa ñun aussi ñu leen di nuyu ñoom ñëpp voilà buñ limee dañuy juum képp ku yeewu lew na ak li ko wër rek nuyu nañ ko sëriñ ñaar ñi moom moo ci am soit nga jàng ko soit nga donn ko mais la nee nga Cheikh Ndiaye sa nijaay la woon Cheikh Ndiaye lew na képp ku yëngu ci affaire làmb xam dëgg xam nga ko wala dégg nga turam képp kuy sénégalais jéem a dox tuuti dëgg nga turam ndax li mu mënoon ak yi mu doon def ak ni mu doon dimbalee jaam yi mu nekkoon koo xamante ne yàlla mayoon na ko xam-xam lool lool nga ne sa nijaay la aussi nga nekkoon ak moom nekkoon sofóoram yaakaar naa nit sofóoram day bokk à chaque fois ñi ci ñi ko gën a jege léegi xam-xam bi fi mu jóge jàng la cheikh da la ko jàngal wala da ko koo doon aussi muy ñaari wala waa merci lamine xam-xam bi mun naa wax ne la mun naa wax ne ndonn la ndax bu ma àndoon ma doon ànd ak paa bi waaw ah, mu noon sama nijaay di ko liggéey waaw ah, ma nekkoon ci moom ah, mun naa wax ne ndonn la mun naa wax ne njàng la mun naa wax ne ndonn la waaw waaw. bi da ngeen doon ànd muy def di la wax ne nii ak nii ak nii la ngay gis. waaw dañ doon ànd muy wax mhm. suufaa mu yónni ma. Mhm. demal utal ma lële indi. Mhm. ma indi mu wax ma ni lii nii nii lañ koy jëndee lépp waaw. loolu njàng bi la mais affaire ndond tamit day doon loo xam ne ay war ay ay rawaan ñoo koy jëlee si kii indi ko si kii maanaam famille boo xam ne ala kuli aal day am kenn koo xamante ne day doon sëriñ ci biir famille bi bu fi bu ko mu dem si keneen demee na noonu wala waaw Lamine boo comme ni ko waxee la mhm. man foogu ma woon ne sax dinaa liggéey lii mhm. maa ngi ko doon jege muy wax itam may jàpp mhm. yi may bind yi may jàpp ak sama mémoire boobu xam nga rek li yàlla war a def li mu a ma def faw mu def ko foogu maa ngi ak sama permis mais lii xëy na yàlla ko jaarale nii rek mhm. fooguma ko woon sax mhm. mais yàlla bu nammee dara rek da koy def mhm. waaw bi nga ko commencé au début ñun lépp fii la ñu fekk mais ñi seetaan xamuñu Ismaïla Mara la Ismaïla di ko defantu di jàppale yéen i mbër yi ñenn ñi di ñëw fii di càngu ba si ñun ñi nga xam ne say doom lañ say fereer la dañuy ñëw ngeen jox ñu def leen lii yóbbu leen lii yooyu noonu yëpp ba nga dem ba benn instant oto bi nga doon dawal sax dawalatu concentré wu si lii nii. waaw mooy li ma la wax rek. comme li yàlla tudd. faw mu am. faw mu am. waaw lii moom mbirum yàlla rek lay wax. yàllaa ko tuddoon fooguma ko woon sax waaw. léegi Ismaïla mën nañoo wax wax ñi seetaan aussi moom si lan lay yëngu maanaam si lan lay ñaan maanaam nit bu amee ban soxla. soit ñu bëgg a tukki soit ñu soxla liggéey wala ay nitu guddi wala ay affaireu rab wala ay dof wala lan lay faj wala moom ci lan lay mun a ñaanal nit parce que tamit loolu dafa am solo am na ay sëriñ yoo xam ne dañuy mënee fii duñ mën lee am na sëriñ xam ne dañuy def lépp ñii teg ko ci mën ñii teg ko ci dëgër fit ne damay faj lépp ñii am na ñoo xam ne boo ñëwee dañuy naan man lii ak lii lii laa mën Ismaïla ci lan lañ ko mën a yaakaar. waa Lamine ci li la mën a wax rek. Mhm. Euh, Eh, defar nit dal man nako sangat ba ngay wut place examen làmb bobu nak xeyna sax mom la gëna a waaw mais yoy yeb dama ci yëngu wax deug fa yalla waaw xamna du neex nga wax ya nak ñan ngay jëflante mais mbër ñan ak ñan ngay jëflante wal lool duñ ko mëna wax ci émission bi waaw dina am ñu mal la ñu ma wax ndax say nit la waaw sama nit lañ dañoo bokku ci man mhm. lo ñoo ñu mom wax deug fa yalla mënuma leen a bañ a tudd. Mhm. waaw muy caaka fay biram kunkum. Mhm. consort laa waaw kooku laa yem nag foofu la ci kooku laa mën a kii waaye mhm. am na ñu des mais wax moo baaxul te xam nga rek. affaire yi moom dafa am lu mu kii. waaw dafa laaj sa dafa laaj sa kër waaw. moom sa waay la. sama waay la kooku dafa bokk ci man. waaw kooku dafa sàmm coloré. billaahi te paaba ba léegi. mu jàpp ma ba bés ni ki tey nii ñuy wax nii. waaw appel bi ma doon wuyu noonu sax bi ngeen di ñëw moom ma doon woon ñuy waxtaan waaw yàlla xam na ko léegi mbëru arène yi aussi mbëru bëri dóor yi dañ fiy ñëw wala mbëru lit simple yi kese ñëw waaw non bëri dóor yi dañ fiy ñëw am nañu fiy ñëw am nañu fiy ñëw waaw waaw fan yoo tamit gis naa fi ay jaaykat borom place bu mag ci réew mi ñëw fi ñu daje fi ñooñu sax xamoon ne xam nañ ko bongo yi dañ fiy ñëw jaaykat yi aussi waaw dëgg la soxla ay bay dañ jaay yooyu yëpp dama cay yëngu wax dëgg fa yàlla yeb dama ci yëngu bayre njaay muslay man dal dof rek la dul faj yaakaar na la bina dof mom wax dëgg bo mako ande andee awoon ma ci lu bari wax dëgg fa yalla donc ñi bëgg ay palaasu liggéeyukaay wala ñi bëgg tukki waaw ñoo yëpp damay jëflante ak ñu damay jëflante ak ñu waaw te affaire yi dal mu ngi mu ngi avancer waaw wax dëgg fa yalla ma ngi ci gis sama bop hmm. wax dëgg fa yalla waaw waaye tamit dinañ waxtaan ci lamb ak yow oh parce que ne nga lamb nga gëna sivur bo sétlo sax li ngay ak ay mbeur ñoo ëpp di samp di jox ay sangat di def ay sengoor ak yoy nonu mel ni ñi di wax mbeur gorewul mbeur day woraté mbeur gëmul dara lool lo ci wax parce que jëflanté nga ak ñoom ay yoon yoon dang koy confirmer wala wa loolu mbir mbor mom bo ci kiyee buñ ci mhm. ñu mom moom na len mhm. euh mbor mom bo boo koy liggéey ak mbor mhm. da ngay xol rek te yalla tax rek mais budul loolu ñeexu ñoo liggéeyante de pour nga ànd ak mbor. Mhm. di muñ. Mhm. Euh, mu ngi noonu daal ñoom. daa nga koy defal te yàlla tax rek. voilà. Mhm. nit ñi leen boole ak nit voilà xam nga nit da lay andi mbor. xool ci kooka. au lieu nga xool ci mbor mi. ki nga ki la andil mbor mi. am na lu ngeen sàq ba mu andil la ko. nga xool ci loolu. waaw. mais yéen maaraay tamit des ñu am ñoo xam ne duñ comprendre parce que par exemple ñu ne teg nañ un million. bu ñu tegee un million ki jël lamb ji du jël un million yi cinq cent mille lay jël te ni mu ñëwee ci yow Ismaïla nga ñaanal ko noonu lay demee ci Zal mu ñaanal ko mu ñëw ci man ñu ñaanal mu dem keneen ak keneen maanaam lamb daa bëri cër est-ce que loolu aussi bokkul ci lu tax mbër yi duñ duñ jox maara yi yenn xaalis yi ñu bëgg wala yenn yi ñu teew non Lamine loolu mhm. bon li ma la mën a wax loolu maara yu maanaam mag yi mhm. ñoo comprendre loolu mhm. waaye ñun maara yi seetaan lamb xam ne un million demi-finale sax da ciy am war nañ mën a xool fu ñu teg foofu loolu. waaw ci sama gis-gis man boog noonu lay viser man. bu ma nee diw jël na un million rek. daf ma war a jox trois cent mille wala quatre cent mille wala cinq cent mille bi. parce que un million bi ma tudd demi-finale bi am na ci. quart de finale sax presque da ciy am. des voix da ciy am. waaw kon nag foofu. bon yaa mën a tolloore rek. waaw. ok. ci wàllu mbër maanaam. ngemb mbër ban jamono la wañ ko war dox ak nan lañ koy doxee ak bëgg a ñëw fii nan ban yan heure lay ñëw. Lamine jot na wala lamb moo bëggee dëgg-dëgg. Mhm. samp mbor période yi lay commencé. Mhm. suuf bu tooyee ci la ñuy samp mbor. Mhm. mais doo xaar suuf si naaw nga ne da ngay samp mbor. waaw mbor nawet lay dox bagage am dem fin de nawet ba bu nawet biy génn foofu yëpp dañ koy dañ ciy dox loolu. kon instant yi jot bu bëgg a samplu. mën na ñëw fii. waaw commencé na instant yi mhm. waaw. ok ok. léegi yeeg yooyu noonu aussi dafa am ay prix fixe dañuy ñëw rek nga defal leen yàlla tax na yow mooy loolu. boo jotee boo jotee numéro bi. waaw loolu dañ ciy wax loolu jarul muy dem ci kii waaw. <laughs> <laughs> ku ñëw rek. wala ku woote rek. ku woote di ngeen si wax. waaw ñu waxtaan si. léegi moodu moodu yi aussi nga xam ne dañuy soxla dañuy nekk fi nga xamante ne moom moo di Europe wala Amérique soxla ay ñaan ngay gis ñi nga xam ne dañuy jaar si gaal yi bu ñu demee soxla ay ay papier luy gaal papier yi ak ñu leen ñaanal wala ay sangat yoo xam ne bu ñu ko defee kayit yi day gën a gaaw ñooñu ñooy liggéey ak ñoom. waaw loolu par whatsapp bi rek xam nga. buñ ci déggante. Mhm. waaw ñu jëflante. léegi bagage nooy def ba mu jot ci par poste. waaw waaw GP poste yëpp dañ ma ci kii ma ciy mm-hmm. jaarali bagage. waaw mm-hmm. mm-hmm. bu ñu def ci xew. waaw ok. ak lan leneen nga ciy dolli loo xam ne peut-être bëgg nga koo waxte laa luñ ko. Mm, waaw mooy sant waa ko ba ngoy rek. di leen di gërëm. ak lew na aussi. Samba Dia fi laa joof yor yëpp. li ñu wër yëpp maa ngi leen di sant ba Jilaas. waaw dafa am lu ma sama xel joxaat léegi mooy maanaam comme mbër yi ma njëkk di jëflante te mënuma leen a fàtte wax dëgg fa yàlla waaw muy biram moom ma la wax caaka ak maam jegaan bu faajuj maam jegaan waaw ñoo ñu laa njëkk a commencé ngémb si làmb waaw loolu moom mënuma ko na a ñàkk a wax muy maam jegaan avant moo bàyyi avant dede bi muy départ départ am départ am waaw mu def ay raw gadoo raw gadoo yooyu noonu. poids léger ba fi mu toll nii dañuy liggéey maak moom sax waaw. Mhm. ñooñu moom mënuma leen fàtte. Mhm. waaw. ak ñi si mel ni euh, <laughs> te yoo yem foofu. <laughs> ah ñun lay topp ba nga sës de. waaw la ñuy daal. waaw <laughs> uh-huh. ñooñu daal wax dëgg fay la ci ñoom laa commencé liggéey. Mhm. waaw. te yàlla defoon na ci ay xew. waaw waaw defoon na la damay wàllu ñoom doon gis seen bopp. wax dëgg fa yàlla. léegi ku fi nga nekk Kobongoy Kobongoy mu ngi nek dans la commune de Fimela tout près de Sambadia Kobongoy mom neex na xam légui numéro yi képp ku soxla ci ban numéro lay woo 77 364 36 83 wala 76 673 10 07 waaw 78 368 45 95 ñaari yooyu yooyu boobu bu ko ma ci woor nga jot ma incha allah. kon ni ngeen ko déggee képp ku woote si numéro yooyu noonu di nga ko jot nee nañ leen kii mooy la nekk benn maara dëkk fii ci Kobangoy di yëngatu ci li nga xamante ne moom moo di lamb ji surtout di jàppale mbër yi di samp ay mbër di leen di jàppale ci seen combat mais bu dul loolu tamit képp ku soxla lu mel ni ay palaasu liggéeyukaay ngay am jafe-jafe pour am liggéey wala nga am jafe-jafe ci sa liggéey boo ñëwee mun na la see jàppale. li nga xamante ne moom mooy ñuy soxla ay kayit pour tukkeeg yooyu noonu aussi da leen di jàppale bu baax a baax mais la am na loo xam ne waxoo ko li mooy daje fii ak ay diriyanke bëri na de jigen ñi am problème ak seen jëkkër ñi ñu ñëw fi ci kër yi di ma fi fekk bari na te loolu waxoo ko wala dañ leen di sutural <laughs> ah comme wax nga ko ñu yàgg ca rek. Ah. ba nit motul. Ah. da ngay jàpp lii fàtte lale. Ah. waaw aussi loolu aussi dim ci yëngu. Mhm. dañ ci yëngu bu baax a baax a baax. Mhm. waaw dafa newoon li ñu fàtte rek xam nga rek. Mhm. doomu aadama yi motul. waaw da ngay gis fii fàtte fele. képp ku bëgg sa diggante ak sa jëkkër wala sa jabar gën a neex wala ngay waaj a takk soxna muy am ay plaignant yu demee noonu yëpp boo ñëwee fii da lay jàppale wala nga am ku góor koo xam ne yaa ngi nekk ak moom te deful fu la nga bëgg mu gën a gaaw boo ñëwee mu jox la ci affaire yi nga yëngal butéel yi day ñëw takk loolu yëpp da koy liggéey mais xam naa comme ni mu ko waxee da koo fàtte woon voilà kon numéro yaa ngi noonu ci suuf écran bi voilà képp ku ko yitewoo rek day liggéey yu bëree bari boo leen ko wooyee si numéro yi moom lépp li muy liggéey dina leen wax ne lii mën naa ko bu fekkee mënu ko aussi dina leen wax ne lii duma ma ko liggéey ngeen xamee ko noonu du lekk xaalisu jàmbur ci loo xamante ne wax dëgg fa yàlla mënu ko suñu garant la ñun waa Lamyn TV def ñuy jàppale bu baax a baax muy ci suñu làmb yu ñu organiser muy ci suñu yaram muy ci suñu leneen ak leneen lépp lu ñu xewle wax dëgg fa yàlla da si jàpp bu baax a baax nekk suñu grand bu baax nekk suñu papa sax laay wax voilà kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di leen di sant yéen ñi doon seetaan yëpp di sant waa Kobongo yëpp fi ñu dëkk ndax fii lañ am amuñ feneen voilà di sant mboolem amateurs yi seetaan Lamyn TV waa lutte simple ak lutte frappe ak voilà di sant ñëpp di gërëm ñëpp jaa ngeen jëf